الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا محمد المكي وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين بقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته noo ngi leen di nuyu di leen gërëm بي déglu bi di ñaan yàlla yëpp mu defal ñu ak dégg noonu ko sëriñ Assane wax muy nag fan yi kon ñu ngi doon jàng ñu yonente bi gàddaay ñëw Madina ba raaya yi nga xam ne moo jëkk Badar te xare Badar moom di am solo ci diine islam ma mën nañu mooy première guerre bi nga xam ni moo xàjjale diggante jullit bu ñu daan bund xataan di ko bu am kattan bu am respect ci adduna bi moo tax ñu koy tuddee al maaraka al fasila xam ngeen ni xëy na sax jotu moon leeral xaswatu zil ushayra waaye xaswatu zil ushayra tudd naa ko ci ci ci waxtaan wi nu weesu waswa boobu eh, yonente bi ci lay yónnee woon ay nit eh, di ngir ñu dogale ji dëggub dëgg bu jógee Xuraysin demoon Saam eh, yónni wu tax ay nit moom ci jëmmi boppam moo demoon ñu di leen dogale ji moo àndoon ak lu mat ak juróom fukk ci ay nit Euh, ba ñu demee ba ca béréb ba ñuy wax zelon cheyra ñu fekk ni jëgg boobu jàll na jëgg boobu nag li mu demee ba jóge saam dëpp war a ñibbi màkka euh, moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon fugluwaat bi nga xamante ni jëgg boobu jóge nañu saam jëm màkka yonent bi dafa yónni talha ibnu ubaydillah ak said ibnu zayd ne leen dem leen ci wetu càmmoñ gi taxaw foofee ngir euh, leerlul ma euh, mbirum digg boobu ñoom ñooñi ñu dem ba ca béréb ba ñuy wax alxawra ñu toog fa ab diir ba Abu Sufyaan romb leen fa ànd ak dëgg bi ñu daal di gaaw dellu Madina daal di wax yonente bi sallallahu alayhi wa ni ko Abu Sufyaan romb na fi ba mu ngi dem booba mi ngi jaar ci yoon wi jëm Badar te yoon wi jëm Badar Badar ak xur la wu nekk foofu ni diggante moom euh, Madina war naa mat téeméeri kilomètre ak juróom benn fukk léegi Abu Sufyaan mi ngi romb noonu nii jëm Badar war a jaar noonu pour dem Makka booba jëgg bi ñu ngi yanu koom yu mag koom yu yu bare bare bare lañ yanu ndax junniy gileem yu ñu sëf ba mu ak i alal alal yoo xam ne buñ ko nattalee du manqué mukk juróom fukki junniy dinaar ci wurus ci li nga xamante ne moom la géej Yusuf ànd ak lu mat ñeent fukki nit ñu koy garde ndax boobu ay jafe-jafe yu bari yi tax na naka jëkk noonu lañ daan doxe waa Màkka gépp ñooy dajale seen alal jox ku leen doy mu ànd ak ay gileem di dem di wuti marchandise saam waaye nag di ñuy wutaale it ay nit ñoo xam ni ñooy garde marchandise kon dëgg bi lu mat ñeent fukki nit lañ ko boole lam ñu di ko wattu mel ni loolu Euh, bu ñu demoon ba jullit yi dogale ko ba jot ci donte le du mën a fay lañ bàyyi ca seeni alal ca màkk yëpp dana doon lu am solo ci ñoom loo xamante ni daal dina fàtte ab buntu loolu moo waral yonente bi sallallahu alayhi wasallam wax waa Madina wax jullit yi neen dëggub Quraysh nag nii te lu ëpp ci seeni alal ñoom waa màkk ma nga ca ma bëgg ngeen jóg dem dogale ji ko ndax le yàlla mën na leen ko may ndolleen waaye nag taxul mu forcé kenn ci génn daf leen ko wax bàyyi mbir mi ci seen xaymamteef bu ko defee kenn ku ne nu mu ci amee xaymamteef rek mën a jóge noonu ngir yaakaarutoon mukk ni eh, xare bu toll nii dana am mi ngi yaakaaroon rek ni ab jëgg bu ñu war a ji te jëgg boobu ñeent fukki nit ñoo koy garde ngir lijjanti naa ay xibaaram ba xam ne mu demee dëgg dëgg dëgg moo tax forcé wutoon kenn ci génn daf koo bàyyi ci seeni i coobar rek leeral leen ko noonu loolu moo waral ñu ëpp ci saxaaba yi des Madina demuñu ngir jortu ni dem gi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di dem du weesu ni saraayaay yee ñu weesu daan demee rek mooy lu ci ëpp daana yabal ab armo mu dem doon tëru ab jëgg bu fa far day dikkaat rek ni jàll nañu wala benn xeex daal du ci ñu jàpp ni lii it noonu rek lay demee moo tax ñu ëpp ci ñoom génn yoon loolu it tax na yeddul kenn ci ñàkk gi ñàkk dem kenn ku demut kenn yedduñ ci ñàkk ñàkk dem la ngir doonutoon programme boo xamante ni force da ci am noonu la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waajee ngir jóg jëm ci loolu yi ànd ak ñetti téeméeri nit ak fukk ak ñett am na ci riwaayaat yi ñu ne ñetti téeméeri nit ak fukk ak ñeent am ñu ne ñetti téeméer ak fukk ak juróom xam naa daal ci digg-diggal yooyu am na ci lu mat juróom-ñett fukki nit ak ñaar wala juróom-ñett fukk ak ñett ci mu yi am juróom-benn fukk ak benn ci ñu bokk ci giirub aws am téeméeri nit ak juróom-ñaar fukk ñu bokk ci giirub xasraj waaye nag taxut sax nag génn gi ñu jàppe ko nañu ko war a jàppe dëgg-dëgg waajtaay wa ca warit waajaluñu ko ko ndax bi ñuy dem ñaari fas rek la ñu àndal wenn fas wi Zubayr ibn al-Awwam moo ko war li ci des miqdaad ibnul aswad alkanadi yi moo ko wax nga xam ne ñaari fas képp moom la yor e, ci bi ñuy génn ak it juróom-ñaar fukki gileem yoo xam ni e, ñaari nit ak ñett ñoo koy awante ñaari nit ak ñett ñooy awante gileem bu kii waree ba sonn e, bu kii doxee ba sonn war ki waroon wàcc dox ñu topp seen ginnaaw noonu la ñu ko doon doxale yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak ali ibn abi talib ak marsad ibn abi marsad ño bokkon genn gileem gu ñu doon awante waye dañu dem ba ci digg bi sax ñu ko yow yonente bi yalla te nga war te nun nu dox top ci ginaaw waye waaye yonente bi ni len déedéet ndax ëpp leen ma kàttan te gënu leen maa bi yoon noonu yonente bi bàyyi ca madina abdullahi ibnu ummi maktoom mu war a yor dëkk ba war a jiite yi julli ga nga xam ne ñaar yëpp moom la ko sant bi mu ba toll ca fa ñuy wax arrawxa la yabal ku wax aba lubaaba ibn ibnu abdul munzir ni ko mu dellu teye dëkk ba nga xam ne moom la mujj dénk dëkk ba te abdullahi ibnu ummi yam rek ci mbirum jiite julli bi mu ne si arme bi ñu jël dañuy jël drapeau bi nga xam ni mooy guider arme bépp jox ko Mus'ab ibnu Umayr al-Qurashi mu doon drapeau bu weex nga xam ni moom mooy guider mboolem arme bi daal di xaajaat mbooloo mi def leen ñaari quartier benn quartier bi mooy quartier mu yi eh, drapeau bi mu jox waa Ali ibn Abi Talib ñu daan ko waaye al bann quartier bi ñu di ko wooyee quartier Lansar mu jox drapeau ba Saad ibn Muaz ñaari drapeau yooyu moom drapeau yu ñuul lañ léegi xam ngeen ni ab armo naka jekk dañ ko daan séddale juróomi cër moo waral ñu di ko wooyee ci arab alxamis ab alxamis saa boo ko déggee rek ab armo lañ ci jublu armo dañ ko daan xaaj juróomi xaaj wutal ko li ñuy wax muqaddima amoo ñu nekk ci kan wutal ko lu ñuy wax mu axira te mooy mbooloo mu nekk ci gannaaw wutal ko lu ñuy wax may mana te mooy mbooloo mu nekk ci wetu ndijoor wutal ko lu ñuy wax may sara te mooy mbooloo mu nekk ci wetu càmmoñ ak alqalbu muy ñi nekk ci digg bi euh, kon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam noonu la seddale arme bi ci wetu may mana mu teg ci az-Zubayr ibn al-Awam ci wetu càmmoñ bi mu ci miqdaat ibn ñoom ñaar rek nag ñooy ñaari faris yi ci yor aw ay fas ci arme def ca muj ga xëy sub nu abi saxsan léegi nag euh, moom jëmmi yonent bi ci boppam nag mu doon général bi ci jiite arme bépp noonu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doxe ci arme boobu yi nga xam ni waajaluñu ko daal di génn jaar ci yoon wu mag wi jëm mag ba àgg Eh, fa wax arroha am fa àggee am fa biir jóge fa daal di bàyyi yoonu màkk ci wetu càmmoñam daal di jàdd ci wetu ndijoor ci fu ñuy wax annasia daal di jëm badar nag eh, bu mu mbedd mu wax aw xur wu wax ci ak mu jaar ci benn kur dal di dem ba jégué asafa fofé ya ca eh, xurwo ñu asafa fi la yonne ku ñu wax bas bas ibnu amr al juhani ak adi ibnu abi zahba al juhani mu yabal leen badar ne len bu ngeen demee ngeen gëstu xibaar ya ba xam lu ngeen di xam ci jëggub abi sufyan bo wi waye fekk ne abu sufyan ta mo doon responsable lu jëgg bi dafa doon ku bari ak moytu ak ku wattandiku ndax xamoon na ni yoonu màkka dafa fees dell ak danger moo tax fu mu toll mi ngi yónnee moom itam di làmbu ay xibaar ba xam yoon bi baa amul problème fii mbaakin nekk ko fi di di gëstu moom itam di liggante ay mbiram comme dajee laaj la ndax gisoo fi benn jafe-jafe ci biir loolu yi muy laaj nag ci la demee bañ ko xamal ko ne ko Muhammad ànd na ak i saxaabaam bañ génn di la dogale si sa jëkk lii la ñuy si bi mu déggee nag la daal di luyee ku ñuy wax dam-dam ibnu amr alxifaar yi yónni ko màkka ngir mu dem sàkku ji ak wàllu ca waa Quraysh ngir ñu ñëw aar si seen dégg boobu yi bala ko Muhammad nangu ak saxaaba yi ak ñu ànd dam-dam daal di génn jóg gaaw ba àgg màkka demee daal di yooxu ci biir xuru màkka yooxu ca kaw taxaw ci kaw giram gi daal di njoof ba kanam daal di wëlbati raxla gi xotti mbubbam arab yi dañ daan de bu ñu bëggee wax lu garaaw garaaw da leen di jaral bu dara njoof seen bakkan ba xaw a ca dagg tuuti xottite seen mbubb seen raxla gi ñu wëlbati ko dëpp dëpp ko daal di woote ca kaw ni yéen waa Quraysh seen alal yi Abu Sufyaan yoroon Muhammad ma ngi koy dogale moo fi saxaabaam yaakaar naa bu ngeen demee du ngeen leen fa fekk gaaw leen war la mu waxee ci kaw nag waa Quraysh daal jóg ñëpp wàcc wàccaay wu gaaw daal di nag Muhammad moom ñu mu àndal daal dañoo jàpp ni suñu jëgg bi day mel ni jëggu Amru ibn al xaj na jëggu uh, Amru ibn al moom itam romboon nañu ko rek waaye taxutoon sax ñu xuus ci ci leeral uh, kooku moom la yonente bi yabaloon ca fa ñu wax an nax la booba Amru bnu Xadri mi moo yor ab jëgg yonente bi yebal fa Abdullah ibnu Jahsh mu dem dogale ko ba mu ko dogale euh, ñu am ay jàmmarloo yu dox seen diggante fekk Abdullah ibnu Jahsh yonente bi daf ko yabal euh, bind ab bataaxal jox ko ne ko lettre bi nag bu ko teppi te doxoo ñaari fan boo ko ñaari fan nga teppi ko ba mu doxee am ñaari fan mu teppi bataaxal bi gis yonent bi wax ko ci ne ko na nga ànd ak mbooloo mi dem ba ca xuru xur sàngam muy batnu nax la nga xaar fa jëggu jëgg bi muy dégg bi jógee xuree sin jëm bi jógee saam jëm mag xoolal ma seen mbir noonu rek la ko yonent bi waxe waaye ba mu demee ca batnu nax la xaar leen fa ba ñëw mook ñi mu ñu dal ci seen kaw ba rey Amr ibnul Hadrami bañ ko reyee ña ca des taw ñu jàpp ñaari nit booleeg dégg ba indil ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam waaye fekk booba dañoo jàppoon ni bis bi mujj ci jumaada sànniya lay nekk ndekete bis boobu mooy bis bi jëkk ci rajab kon al ashhurul hurum dafa dugg si te weer yi ñuy tuddee al ashhurul hurum dafa doon weer yoo xam ne dañoo araamaloon ku ci xeex araamal ku ci tuur deret loolu aada la woon ci nekkoon ci arab yi ñoom biñ jàppee bis bi moo mujj ci al jumaada euh, jumaada sànniya far yàlla dugal muy première bisu rajab ñu euh, rey Amru bnul Hadrami moom jàpp ñaari nit ñu àndoon nangu lañ yoroon ci ay alal dem gis yonente bi sama bañ ko yóbboo yonente bi ni leen xeexloowuma leen ci weeri xorom yi daal ci tey nanguwut a jël prisonnier ya alal dañ ko andi nit nangu koo laal léegi waa Quraysh biñ déggee loolu daal di nag di di ñaawal ab daram lool ni Muhammad léegi xotti na ormay weeri xorom yi ba mi ngi ci rey ay nit di ci nangu ay alal di ci jàpp ay personnes mu doon coow lu bëree bëri di ci yonte bi fee teg ba alquran wàccee benn aaya boo xam ni day wax ni yasalunaka an ilchahri alharami qitaalin fiihi qul qitaalun fiihi kabir wa saddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjid alharami wa ixraaju ahlihi minhu akbaru indallah aaya boobu kon loolu yi xewoon ci bat na nax la moo sam ak wàccam yoo xam ne ñu ngi lay laaj mbirum euh, weeru araam bi waaye nag nii ñu euh, doxe diggante nit ñi ak yoonu yàlla ak dàq gi ñu dàq nit ñi ba na mënuñoo àgg ca masjidil haram loolu yi moo gën a rey moo gën a rëy moo gën a bonet kas ci al ashur bi aay bi wàccee wax la yi nag yéen itam na nangoo jël prisonnier doon na nangoo jël nañ nangoon ca yàlla loolu yi la waa Quraysh di junj ne Muhammad dafa jàpp ni nag suñu jëgg bi day mel ni jëgg ba Amru ibn al-Hadrami yoroon daal ni daal jog jóg waa Xurayshin gépp jógandoo ñaari nit ñaari nit rek nekk fa ñoo fa nekk ci Màkka kenn kii benn nga génn wala nga wut ku taxaw sa place génn waaye kenn desu ba ci ñi nekk ci tegu Màkka sax dañoo sàkku ci ñoom ak wàllu ñu ñëw ànd si ak ñoom kenn desul ci kilifay Xurayshin yi ku dul Abu Lahab te Abu Lahab dafa am ko ameeloon bor mu fab ko fi ko amee bor teg ko place am kooku demal ko waaye ñëpp rek benn benn benn giir si giiri Xuraysh si desut ba mu des Bani Adi Bani Adi daal ñoom ñooy ñi nga xam ne kenn ci ñoom gënut dem ba tax waaye ñu ci ñëpp tamit bi ñu dajaloo gis nañ ni arme bi war naa mat junni ak ñetti téeméer ci ay nit ci njëlbeen bi am nañ ci ay fas lu mat téeméeri fas am nañ ci ay mbubbi koŋ lu mat juróom benn téeméer ay giléem yu bare bari yoo xam ne kenn xamut leen ba nu mu léegi Abu Jahlin moo doon général bi jiite arme boobu Abu Jahl ibnu Hisam ñi nga xam ne ñoo yoroon wàllu dund ba di leen dundal juróom-ñeenti nit lañ ñu bokk ci ashraafi Quraysh danañ def bis bu set danañ rey juróom-ñeenti gileem mbaa ñu rey fukki gileem bu ñu reyee tey juróom-ñeenti gileem bu ëllëgee ñu rey fukki gileem ci noonu yi lañ nekkoon ci euh, wàllu dund bi waaye bi ñu waajee ba dem des am na benn problème bu pose muy seen diggante giir ga ñuy wax bani bakkar dafa amoon ay mbañante yu yàgg yàgg ak xeexoo yu am seen diggante ñu xalaat ne ah waaw ñun bu nu waajandoo ñun ñëpp jóge màkk dem te bani bakkar ñu ngi ci suñ ginnaaw ndax du bu ñu nu doxee ginnaaw danañ nekk diggante ñaari sawar ndax Muhammad mi ngi suñ kanam di sunub noonu bani bakkar sunub noonu lañ ci ñu ci suñ ginnaaw nekk diggante ñaari sawar loolu problème loolu def na leen waaye Iblis xeeñu ñu yor meloo ku ñuy wax suraaxate doonoon sangu bani te leen loolu maa ko garanti kenn du leen bàyyi ko gannaaw maanaam dara du leen bàyyi ko gannaaw lu leen di naqari loolu moom moom naa leen ci ko seen xel dal ci ñu daal di jóg nag daal di génn ñoom ñëpp nag comme ni ko yàlla waxee bataaran wari a naasi wala sëñ bi naam ngir sékkaréwu ak njëstal ak di teel yàlla ñu daal di jóg bu gaaw jëm wàllu euh, wàllu càmmoñ euh, ci jëm Badar euh, ñu ngi soobu bi ñuy dem ñu ngi jaar ci yoonu xuru asfa jaar fa ñuy wax xadit jaar al joxfa bañ tollee foofu ci joxfa lañ daje beneen leetar bu bàyyeekoo ci Abu Sufyaan mu di leen wax ñi leen da ngeen a génnoon ngir aar si seen alal ak seen jëgg ak seen i waaye yàlla musal ne ko man ngeen a dëpp ndax fekk na weesu na fa ah, fa ah, ko yonente bi waroon a mën dogalee ba noppi daal di leen di bind laata lettre bi dajeeg ñoom ci foofu njëkk jox fa. Abu Sufyaan ana nan la ñawee ak nan la muuse ba digg bi rëcc yonente bi sallallahu alayhi wa sallam Abu Sufyaan bi muy dox mu ngi jaaroon ci yoon wu mag wi nga xam ne moo romb Badar jëm Màkk waaye moytu gi mu doon moytu ah, ak euh, euh, gëstu gi mu doon dafa dem bi mu demee ba jub Badar dafa jiitu ji njëkk. nekk ci ginnaaw mu ji dox ci seen kanam bi muy dox ku ñu wax euh, Majdi ibnu Amr daal koy laaj ne ko arma Muhammad bi may dégg xamoo ci ñoom dara ndax déggoo ci ñoom dara kooku ne ko de gisuma fi dara lu may tiit waaye na gis naa ñaari gaay ñaari ñaari gawar yoo xam ne ñaari ñu war ay gileem ñëw ba ci tund wi ñu yësal fi wàcc naan ci seen bidon daal di waraat delloo loolu daal gis naa a Abu Sufyaan daal di gaaw dem ba ci tund moom mu xool fa ñu yësaloon gis fa neefaree gileem mu jël ko ba ko tojee gis ci ay saalitaan rek mu ngaa lii de gëléem Madina la kon xalaat yu set si yu saw yooyu lañ doon def pour di moytu ba mu ne ma gëléem Madina la daal di dëpp ba mu demee ay jégg gawar ba daal loolu moo ko mos daal di wiire yoon dañ leen jaar nen dem mel ni jëm sow jëm ci tefes tefesu géej kon foofu la jaar ba mucc moom dëgg boobu moom Abu Sufyaan ci ak ñawam daal di nag yónnee leetar bi mu yónnee waa waa Màkka mu dajeeg ñoom ci jox fa ni leen li ngeen doon moytu eh, ak di aar seeni alal yàlla musal na ko mën ngeen a dëpp waaye bi leetar bi àggee waa Màkka jot leetar bi jàng daal ni kon ndax leen taxoon a jóg lijjanti ko na waaye Abu Jahlin ak xanaa dogalub yàlla rek Abu Jahlin ak réem ak dogalub yàlla bu agsi daañu leen déedéet duñ dëpp fokk ñu àgg ba badar bu ñu àggee ba badar am fa ñetti fan rey fa ay giléem lekk fa ay ñam naan fa sàngara jigéen ñi tëggal nu arab yëpp dégg nu dégg dox yi ñu dox ak mbooloo mi ñu àndal dinañ continuer duñu wàll duñu wegg ba waaye dëpp moom gis ko def Abu Jahl li moo génne xalaat bi ñu xalaatuñu def dañuy dem ba badar ñu def la bi mu waxee am na ku ñu wax Axnas ibnu Shurayq moom Eh, seenu eh, àndandoo woon boo xam ne dañ koo wowoon ak wàllu rek mu ñëw di leen jàppale moo doon kilifa bani Zara Axnas ibnu Shurayx moom da leen ah man de li ma gis mooy ñu dellu waaye ba mu joxee ndigalul dellu ñu gàntal ko oh, mooy lam digle mu daal di ànd ak at jiiram te boobu matoon na ñetti téeméer daal ñu ngi def ndax bañ leen di ànd ba ñuy ànd see yéen nag dañ doon ñëw ngir dimbali leen ci jëgg bu ñu war a nangu waaye gannaaw mucc na ak ñun dañ ci demati léegi ndax amuñ jël kooku daal di dëpp foofee bi xara bi amé ba ray gu metti gogu am ci ba kilifa xoosi yëpp daje ba ni seexal fa lañ doxé fonk ko fonk fonk ba fonkel gu ëpp gañ ko fonkoon ngir xalaat bo mu leen andi bi werante woowu amé banu hashim ñu ci bari yit wax abou Jahl ni ko nak li wër moy dañu wara depp dëpp waaye mu gantal deugal rek deugal bop dal di and ak armo bi léegi nak ñu ngi toll ci jooni nit ginnaaw bu bani saara dëppee jëm Badar bañ demee ba jege Badar ci benn beñ bu nekk ci catul xurwa foofee lañ wàcc bañ wàccee foofee fekk yonente bi moom moo ki gaayam ña nga doon gaaw di gaaw lool ngir bañ jëgg bi di leen rëcc fu ñu romb rek danañ laaj laaj mbiri jëgg bi fu ñu romb laaj ba xam luñ ci xam ba agsi ca xur wu ñuy wax xuru Zifraan fa lañ wàcc ñoom yonente bi moo ki saabam ci xur wu ñuy wax Zifraan fa lañ wàcc foofee nag bañ fa wàccee fa lañ déggee ni euh, waa Xuraysin génn jóg nañu ngir aar si arme ngir aar si seen alal yooyu te mbooloo mu baree baree bari lañ euh, léegi nag kon mbir mi soppi ko na ndax li mu soppi ko mooy yonte bi muy jóg ab jëgg bu yor ay alal ñeent fukki nit di ko garde ñoom la jógoon pour gas nu ji leen àndoon naag lu mat ñetti téeméer nit waaye am te lu mu dégg ñu ni waa Xuraysh yi gépp jóg nañ te mat nañ junniy nit ak nangam waaj nañ seen wàccaay gépp ngir dog ngir gàttandu si leen pour di aar si seen dëgg boobu kon mbir mi sottu waaw kon luñ yaakaarutoon am na li mu amee nag ana luy pexe yonent bi xam na ni menn pexe amul mudul jéem a avancé jéem a ñene te jëfandikoo ak njàmbar te fas yéene xeex loolu la gis mooy mooy pexe te si ku wut ni yonante bi bu leen bàyyi woon bu bàyyi woon waa Màkka ñu wëndeelu ci xëru nu mu leen neex mu dëpp ngir bari googu ñu bari si ku wut ni kon bu boobaa ñoom seen doole dana gën a yëkkatiku moom ñii dooleem dana gën a manqué te fañ ko tegoon danañ ko gën a wàññi te it bu demutoon dogale ji leen mën naa am ñoom danañ agsi ba biir Madina te bu boobaa xeex bi sax li gën a métti loolu lépp da si mën bi daal di dajale saxaaba nee na mbir mi de soppi ko am na ci ndax dañoo jógoon di dogale ji ab jëgg waaye dégg naa waa Makka ànd nañu ñoom ñëpp mat nañu junni nit ak nangam yor seen i ngànnaay ñëw ngir xeex si ak ñun ana lu ciy tax luy seen xalaat leen daje ñëpp laaj leen lu ciy seen xalaat boobu leen laajee lu ciy seen xalaat wax leen nit ñi leen yàlla nag euh, xamal na ma ni ma benn ci ñaari kuréel yi moom dinaa ko am mooy kuréel bi euh, wala kuréelu màkk bi la nga xamante ne mbooloo lañ mu ànd di ñëw loolu moom yàlla wax yéen ma ko ba ma xam ne dinaa ci am benn waaye lu ci seen xalaat ba mu leen waxee lu ci seen yoo xam ni eh, di diital nañu ragalit ni loolu buñ ci duggee du sotti am na sax ñu jot ñu ñu jot loolu ci seen xalaat eh, li ñu gënoon a daal mooy dem dëkk bee nga xamante ne moo yor alal ji daal ñu dem occupé ko nangu ko waaye nag léegi xeex bu toll nii moom léegi bàyyiwuñ ko woon xel daal di lay it ni yonente bi kat bi mu nuy waxuñu woon ab xeex ba tax ñu mën ko waajal léegi dëgg bi dana waxoon xeex bi waajaluñ ko woon biñ génnee xalaat yooyu yàlla sax wàccee na ci loolu ayat alquran di leen yedd ne wa is yaidukum allahu ihda taifataini annaha lakum wa tawadduuna anna gayra daati shawkati takunu lakum mu ni yàlla dal na leen ni benn ci ñaari kuréel yi moom yéen koy moom waaye nag yéen ngeen bëgg li ci gën a jàpp daal moo leen gënal moom ngeen gën a bëgg ca dee nga xam ne seen euh, tedd nga ak seen kàttan ca lay feeñ waaye boobu kon diit diital jooju ñu doon def euh, ci war a jàll badar ngir xeexe ak ñoom moo tax yàlla wàccee ko yedd leen yeddaa nga jooju waaye nag ñee doon kilifay mbooloo ma di abou Bakar dafa jóg wax wax ju rafet joo xam ne wax jëpp ak ngëm la feese ak fas yéene volontaire ak topp ndigal yonent sallallahu alayhi wa sallam ko bëgg Omar ibn Khattab jóg moom itam daal di wax wax joo xam ni lam tekki lépp mooy walanteeru ak topp ndigalu yonente bi sallallahu alayhi wa ci ni mu ko diglee ku ñuy wax Miqdaad ibn Amr daal di jóg daal ni yonente bi yow yonente bi yàlla wóyeel ci li la yàlla woon nun ñu ngi nii ànd ak yow giñ naa ci yàlla ni li banu Israil waxoon Moussa day ñun duñu la ko wax banu israil dañoo waxoon Moussa ne ko izhab anta wa rabbuka fa qaatila inna haahuna qaaidun demal yaag sa borom ngeen xeex waaye ñun kii dañuy toog loolu la banu israil de bind nañ ci yàlla ne du la wax lool ñun ñu la wax mooy izhab anta wa rabbuka fa qaatila inna maakum muqaatilun ah, demal yaag sa borom ngeen loolu la ñuy wax loolu ci lool bég ci lool mu daal ci dal ne ko giñ naa ci yàlla mi la yónni ci ak dëgg ne boo àndoon ak ñun di dox ba fa ñuy wax barkul ximaat te barkul ximaat ma nga nekkoon ci biir daa sori yaman boo jamono ak ñun yi it day danañ la topp di góorgóorlu ba ba nga àgg foofu nag bu ñu ko waxee loolu bégloo yonente bi sax sax mu ñaanal ko aw yiw waaye ñett ñooñu waxagul nag ñoom ñëpp ci muhaajiroon yi lañ bokk te muhaajiroon yi ñoo gën a néew ci arme kon yonente bi bëgg naa déglu xalaat bi lansaar yi di génne ndax ñoo ëpp ci arme bi te ba muy jaayanteeg ñoom ca bayaatul la dafa mel ni la ñu waxante woon mooy danañ ko dimbale ci biir Madina waaye ndax ku ñu génnee Madina dana ci bokk wala du ci eh, day mel ni loolu kon mat naa bàyyi xel moo tax yonente bi bi ñuy waxee ba noppi mu yéen nit ñi wax leen ma seen xalaat bi mu ne yéen nit ñi wax leen ma seen xalaat loolu te fekk lansaar yi la ci jublu ki nga xamante ne moo leen jiite jiite lansaar yi di eh, te yor seen drapeau di Saad ibn Muaz daal ne ko yow de yonent bi dafa mel ne ñun nga jubloo wax yonent bi ko wax mu daal di jóg wax wax ju rafet di fees dell ak ngëm akub cofeel ak waajtaayu walanteer rek ndax dane ko ñun de dañu laa gëm dëggal la seere nañu yëpp ne li nga indi mooy dëgg loolu it ci lañu joxoon suñuy kulëre ak suñuy fas-fas ci fas la yéene déglu ak di topp seen ndigal kon nag wéyal ci li nga bëgg giñ nañ ci yàlla mi la yónni dëgg giin boo demoon ci kanamu géej gi xuus ko ànd ak ñun danañ xuus danañ ko xuus topp ci sa ginnaaw kenn ci ñun du des noonu de ba ñu nga dajeeg say noon tey ba ñu nga dajeeg ñoom ëllëg fu ñu dajeeg ñoom danañu muñ ay muñkat lañu ci xare bi waaye dëggu lañu ci daje it te it yàlla mën na laa woon lu seral lu seral sa xool ci na kon nag doxal ala barakatillahi waaye bi mu waxee wax jooju moom tam yonente bi loolu dégloo ko lool ba indil ko sax ak tawat mu daal di sawaraat dox leen ñu dem da ngeen bëgg te xam ne yàlla de dël na ma benn ci ñaari kuréel benn muy dëgg di mbaa mbooloo me daan leen wallahi biñ naa ci yàlla ne dafa mel ni maa ngi gis fa ñuy daanu ñoom kenn ku ne fa ngay nërne lu nga xam ne mooy sa daanukaay maa ngi maa ngi jaakaar la moom léegi nag euh, noonu lañ waxtaane euh, biñ àndee ci ay kàddu yonent bi daal di laxas jógee ci xuru zefraan daal di jaar ci mbedd mbeddum doj mu ñuy wax al asafir daal di fay bàyyi dem ci dëkk bu ñuy wax ak dia daal di bàyyi xanaan te xanaan mu ngi doon benn beñ bu mag mu bàyyi ko ci wetu ndijoor daal di wàcc fu jege badar wàcce fu jege xuru badar woowu foofu nag bañ fa taxawee ba wàcc fa mu jóg moog abou bakar nag di xoolal boppam ba xam lan lay gis ba ñuy wëndeelu gis genn góor góorug arab yent bi laaj ko ne ko waaw loo xam ci waa Quraysh waa Màkka ak Mouhamed mi ma dégg ñu ne ñoom dañu bëgg a xeex da ko laaj ñaari arme yëpp yu bëgg a nëbbu bëgg góor gi bañ a xam soom dara dañu ko ak ñi mu àndal ak waa Quraysh ana loo loo dégg ci ñoom damaa dégg ñoom dañoo am ay jafe-jafe góor gi ne ko du ma leen ko wax te waxu leen ne yéen fu ngeen bàyyi ko wax yonent bi loolu yonent bi ne ko boo nu waxee nu wax la góor gi ne ko ah, kon noonu lay dem yonent ko wax ah. góor gi ne ko man de li ma dégg mooy Mouhamed bi sànq fekkee kama wax wax na dëgg nag jamono bi ñu toll barab sàngam la war a toll wax béréb bi yonte bi wàcc ñëpp daal ne ko waa Quraysh dégg naa bis sàngam la ñu jël bu fekkee kama wax wax na dëgg jamono bi ñu toll barab sàngam la ñu war a toll dafa mu wax it mooy ñett fa waa Quraysh nekk yow ci àll màgg la boobu la la wax boobu àggalee yon daal bi yéen ak yéenee ñaan yonente bi ne na mim maa in ñun ci ndox lañ bàyyi ko daal dëpp ak yoon ak yoon na waaw ndoxum lan ndox ndox mi araa ko jël wala ndoxum barab sàngam waaye moom lëntal na واحنا ربنا تمنى كنا نحن من ماي إيه؟ من كنا خلنا باي لا أنت هو مثلا بيت ليكو ديك بقول زمان سبعين سنة بقول كنا هو في جاهنا نحن نحن مبارد كن آه، نوني بيان في بدل بس أرنو بني توك سينغون غوغي سينغون بس بوبي مو يبلي وات مو كده بس جاس دفع إيد بسو بخم لان لان يخم في خبر خريش مو يبل نت نيو بوكسي كل في مهاجرني مو يعلي نبي فالت Zubayr ibn al-Awwam ak Saad ibn Abi ñu dem ba àgg ci ndoxum Badar fekk fa ñaari xale yuy root di rootal waa mag ñu jàpp leen indi leen ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñu leen indee waaye ña fa toogoon laaj leen leen yéen fu ngeen bàyyi ko ñu ne ñun dañuy rootal waa waa xarit waa xarit ñun yónni ñu wutal leen ndox waaye mbooloo mi jàpp nañ ne xale yi xale yi Abu Sufyaan la te boobu seen xel génnagul ci ni rek dégg ba Abu Sufyaan yoroon daal ci la seen xel gën a nekk ci ne xaj na moom la ñu dàq waaye arme bi ba léegi gëmaguñ ko dëgg dëgg gëm ñu jàpp xale bi xale yi sonal leen lool dóor leen dóor yu métti métti ba xale yi bi ñu amatul fexe ñu ne ñun kon Abu Sufyaan yéen bi yonte bi salmalee ci julli gi yedd leen ni leen waaw yéen bu ñu leen waxee dëgg ngeen dóor leen ñu fen leen ngeen bàyyi leen wallahi gën ay xuree si lañ yi ñu leen jëkkoon a wax mooy dëgg ci ñoom daal di woo xale yi moom ci boppam laaj leen moom yonent bi ni leen waa Quraysh ana ana fuñ nekk xale yi ne ko ñi ngi ci ginnaaw beñ bii ngay seen ci ci catul tund mu ne ko ñaata lañ yonent bi ni xale yi ñaata lañ xale yi ne ko bari bari lañu de yonent bi ne leen nu ñu toll yi ñu toll yonent bi ne bés bu set ñaata ñaata la ñuy rey mu ne ko danañ rey juróom-ñeenti gileem rey ak juróom-ñeent yonent bi ne kon ñoom juróom-ñeent téeméer ak ak junni ci lañ toll kon mbooloo mi ci diggante juróom-ñeent ci ak junni nit ci lañ toll daal ñu leen ñan ñoo ci nekk ci ci ci kilifa Quraysh xale yi ni ni Utba ak Shayba ñaari doomi Rabia ña nga ca Abul Baxturi ibnu Hisham ma nga ca Hakim ibnu Hisham ma nga ca Nawfal ibnu Xuwaylid ma nga ca Xaaris ibnu Amir ma nga ca Tuayma ibnu Adi ma nga ca Nadr ibnu Xaaris ma nga ca Zamaa ibnu Aswad ma nga ca Abu Jahl ibnu Hisham ma nga ca umayatun xalas mooy biñ tuddee ñooñu yonent bi ne nag na ngeen xam ni màkkaa ngi nii nag dagg yi ci resam dana yónni maanaam ñam gën a fonk ñoo ñëwaat léegi jullit yi daal laxas jóge foofu ñu nekkoon ba gën a jege Badar daal di wàcc ci xuru Badar ci peggu pegg bi gën a jege Madina pegg bi bi jëm Madina waaye nag dañoo sori ndox mi lool fañ wàcc jegewut am ndox ci suuf suuf kekk lañ wàcc ba jullit yi bi xoolee amuñ ndox xaw a ba euh, am na ci ñu xaw a découragé tuuti ndax booba dañuy door a dugg ci islam euh, liñ ci war a jànkoonteel ci ak muñ lépp xamaguñu ko naka noonu it coono bi jàpp na leen bañ tàmbalee gëmmentu waaye yàlla wàcce leen ab taw taw bu bari boo xam dañoo sangu wut lu mel ni ay mbalka def ci ndox daal di fab seen mbuus suuf si it tàpp tàppalu ba nga xam ne buñ ciy jaar euh, benn bi ni mu doon méttee benn nit bu caaf nga xam ne loolu lépp andil na leen ak cawarte andil leen dalu xel loolu yi la alquran junju ni is yuxsikum annaasa amanatan minhu wa yunazzilu alaykum min alsamai maan liyutahirakum bihi wa yusrifa ankum rijsa alshaytani wa liyarbita ala qulubikum wa yuthabbita bihi alaqdam ci suuf lan fa waaye taw boobu nag yàlla da cee def kiimaan ndax noonu mu doon xéewal ci jullit yi noonu la doon ab sànja ca yéefare ndax ñoom da leen a andil lu mel ni ngiro dafa taw ba mu ëpp ba mu doon ay ngiro ba mënatuñu avancé ba mënatuñu jàll nga xam ne kon def na ko mu doon xéwal ci ñii waaye ab natt la ko def ca côté bi yonente bi daal di leen di jëf ndax dañu xëy dox jëm ci ndox mi mi gën a jage ci badar ñu wàcc ci ndox ma njëkk a jot rek bañ fa wàccee ba toog ku ñuy wax xubbaab ibnul munzir te ku rafetoon am xel la daal di wax yonent bi waaw yonent yàlla bi ndax fii nga wàcc nii day wàcc waaye bu la yàlla wàccee nga xam ne sañu nu ko jiitu sañu ñoo deltu ginnaaw wala xalaat la rek ak xare ak i pexe yonent bi ko xalaat képp la ak xare ak i pexe xubaat ni ko kon fii du bu wàcc waaye fii baax ni ko liy pexe mooy nañ jàll ba ndox bu gën gën a fa dalee def fa suñuy kaaw ndox yi ci ginnaaw bi yëpp ñu sakkaat bu defee bu ñuy xeexee ñoom ñun buñ maree dinañ naan te ñoom buñ maree duñ naan yonte bi ne ba xalaat boobu nga xam ñu daal di avancé dem ba ci ndox mu gën a jege yëpp ñu samp ko def seen kaw daal di sakk ndox mi lépp xeex ginnaaw bu ñu wàccee foofu ci ndox moomu sànq bu ñu avancé daal di xalaatal yonente bi ne ko dañ laa defaral fii ab néeg boo xam ne da nga fi nekk ñu waajalal la sa war waay ba mu jekk bu koy fee nga mu toog ci mu nekk ci sa wet ñun ñu dem ci xale bu yàlla dogalee mu gañe noonu loolu mooy li ñu bëggoon bu yàlla dogalee la ca des nag bu boobaa yow nga gaaw war ci si gileem ji te dem Madina ndax ay nit nga fa ñoo xam ne nga ëppuñ leen ak cofeel ci yow te buñ xamoon ne da nga xeex duñ des gannaaw nga man daal dellu Madina ñu nga aar la jihaat ànd ak yow ba nga mën a taxaw la nga bëgg taxawal xalaat boobu cent mille moo ko jox yonte bi a yonte bi tagg ko ñaanal ko aw yiw ñu daal di defaral yonent bi ab néeg mu nekk ci kaw aw tund mu tiim combat bi nga xam ne bu ñuy xeex danañ tiim léegi ñu tànn fukki lu toll ñu toll tànn ab kuréel bu bokk ci waxambaane lan saar yi Saad ibn Muaaz mu jiite ko ñuy gàdde yonent bi sallallahu alayhi wasallam gàdde ci koor yi mu ni kon di dox ci béréb bi ñu war a combat di junj di joxañ di wax ni mooy fi war a dee mooy fi diw war a dee incha allah noonu la ko doon waxee ba noppee nag ba waajal ba noppi moom dem ci euh, wetu ak ëkk gu nekkoon fa fi fanaanee julli jullit yi it dëgër lu guñ dëgër lu ci wax yéen tax mu dal lañu àndal ngir gëm guñ gëm li mu leen wax kon guddi ajuma wala euh, fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru koor ci atum ñaareel mi ci gàddaay léegi waa Màkka ñoom euh, ña ca fañ nekkoon am na it ay juuyoo yu am ci seen biir waaw guddi yi nga xamante ne suba la war a am waaw toog ca katul xuru ba euh, biñ xëyee daal di wàcc si ci xur wi wàcc ci xur wi am ci ñoom ñu jóg ñëw jëm si ci mbalkam yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëgg naan am ñu jóg bëgg leen a dogale yonent bi déedéet bàyyi leen rek bàyyi gis nañu ne ku ca naan rek bis boo ko day ña ca naan ñëpp rey nañ rey leen ci bis boo ba mu des xakim te kooku ginnaaw bi dafa jëblu rafetal ak moo tax bu masaan saan ci giñ sax ngiñ lu ko ñor day wax ne giñ naa ci yàlla ni ma musal ci bisu badal ne nangam naa بقريش دنيا بدل و أرم بمدينة بميان تني أجمع عند ندل لكن يو يعني كنوا خهما يرمن وهب الجماهي نكو بجس أرم بمدينة بهم نجوك وهذا فين ورد فين ورد لأن أكو فصام لا تدري سني سنة تسمير لين تلو يو أبطوري ما مانتو دفعوا أرم بريدك سنة تسمير يو أبطوري ما مانتو سنة تسمير daal waaye xaar leen ma xool ba xam ndax am nañ ñeneen ñu des gannaaw ñoo xam ne dañ leen a dencam déet daal di wër ci xur bi dama dem ba sori daal di dëppaat daal di gisuma kenn waaye nag ñu a ah, mun leen musiba yu yenu ay dee laa gis musiba yu yenu ay dee ndax giléem yes reba yi jëmmi deegu set wecc lañ yan ndax ay nit lañ ñoo xam ne amuñ benn kaaraange amuñ benn wéeruwaay bu dul seen i ges te wóor na ma ne bala ngeen a rey kenn ci ñoom daañu kenn ci te seen mbooloo mii buñ ko jeexalee ab dund bu baax dootu lañ ko amati ci àdduna bu ngeen yeboon nag teylu te xalaat na ngeen ci def na def ay xalaat moom dañu jël seen xalaat boobu jox leen nag am ñu jóg daal di contre Abu Jahl ne nag léegi yéen lii yaa ci léegi mu doon coow lu dox ci seen diggante léegi nag bi loolu jàllee armab yonente bi ak armab Abu dem nañu ba séenante nag lay ci biir xurba bi ñu séenante nag daal di wax ni yàlla day ñii xuree sin lañu ñu ñi di ñëw di siik réew ak di rëy rëylu ak di ndam di la weddi di weddi sab yonent yàlla maa ngi sàkku ci yoon ndimbal ndimbal la nga ma diggoon nga teewalal ma ko yàlla yàlla na nga leen alak ñoom ñëpp ci suba teel yonent bi ñaanee ñaan boobu Abu Jahl daal di jóg moom itam ñaan ni yàlla kii day moo fi gën a dëgg moo fi gën a moo fi dàq dëgg ak mbokk moo ñu andi nit loo xam ne xamuñu ko yàlla nañ ko alal ci suba dem daal di ñaan ñaan boobu moom daan yàlla ku la ci gënal ci ñun ñaar ci ci ñaari kuréel yi rek yàlla na nga ko dimbale tey jii ci ñaari istiftaax yooyu ci la yàlla wàccee ayab alquran ni in tastaftixoo faqad jaakumul fatahu wa in tantahu fa huwa xayrun lakum wa in taudu naud walan tugniya ankum fiatukum shay'an walaw kasurat wa anna allaha ci la yàlla wàccee aaya boobu kon ñu waajal xare bi bi mbooloom yëpp daje di waaj a xare te yonente bi sallallahu alayhi wa jóg di defar sàppe yi di ko jubbanti bu muy jubbanti sàppe yi mbir mu yéeme am na ndax mi ngi yoroon eh, mu xaw a génn tuuti génn sàppe si yonente bi rukku ko ci bant bi mu yoroon rukku ko ci biir bi ni ko yamal yemool def ni ko defarul sawaat ni ko gaañ nga ma yow gaañ nga ma da yonte te ne fokk mu fay yonent bi daal di ñari biiram si saa ne ko fayul mu daal di ñëw lëng yonent bi daal di fóon biir bi yonent bi ne ko ana lu la xel ci lii mu ne ko damaa gis ni ñu ngi nii taxaw ci buntu dee ma bëgg su may dee sama sama yaram mujj laal sa yaram loolu yonent bi daal koy ñaanal aw yiw wax ko lu rafet bi yonent bi yemale sàpp yi ba noppi nag da leen digal ni leen nag bu leen jëkk song te du maa leen ko digal yo ma leen digal song ñoom bu ñu leen sàngi songee na ngeen fettanteeg ñoom na ngeen jël fett fett jëfandikoo bu leen boot ci seen i jaasi yi te dañoo accès ak doole ba accès ba ba accès ci seen kaw ba noppi. bi mu leen tëralee plan de guerre boobu daal di delluwaat ca néeg bañ ko defaraloon ñu tiim combat bi moo ko Aboubacar ñu nekk foofu. dañ demee ba ca néeg ba yonente bi xool gis ñu mbooloo mi mu àndal ñetti téeméer rek la ñu ak mu xool waa Quraysh ñu gis ne mat nañu junni nit daal di jublu xibla daal di ñaan yàlla yàlla nag ma teewalal la nga ma digoon. yàlla mbooloo mii day boo leen boo leen alagee kenn dootu la jaamu ci kaw sof abadan di continuer di sakku ak xetli ko ci yalla di ko ñaan ba lambay gi lambay mu làmbaayoon dafa mujj wadd dafa mujj wadd Abubakar ñëw jàpp ci loxol ci bi ni ko doyna nak la jël nga sonal nga sa borom bokku na ci ay yi wacc di wax xetli ko go wu yonent bi fatli ko moy istastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min al malaikati murdafin yonente bi ay boobu wàccee mu daal di génn génn ci arish bi te mooy li néeg sawar ba mel ni kuy tëb sol bubbum di wax ni sa yuhzamul jamu wa yuwalluna dubur des ngeen dàq te dinañ wala wa saatu addaha wa amara loolu la yonente di wax ci armo bi xeex bi fi mu jëkk tàmbalee ku ñuy wax al ibnu abdil asad al maxsoomi yi te fekk waaju faxat la woon gu ñaaw jikkoo moo génn ni fa waat naa ci yàlla ne danaa naan ci seen dégg bi mbaama màbb ko mbaama dee ba mu génnee Hamza ibnu abdil mutalib dogale ko bi ñu dajee Hamza dóor ko jaasi mu dagg tànk bi mu sànni deret agsiwul ci mbarke mi dafa daanu waaye dafa dal di diri ko ba àgg ci mbarke mi ngir lim waatoon moom dina ci naanat waaye foofu la ko am sa fekkaat ak beneen dóor ba foofu la yem ngay kiñ jëkk rey kon ci xare boobu loolu moo taal sawaraw xare bi léegi ñetti waxambaane jóg ci ci ci gawari Quraysh ñoom ñett ñi ñëpp nag ci benn famille lañ bokk muy Utba ak mbokkam Sayba te ñooy ñaari doomi Rabia ak ku ñuy wax Walid di doomi Xutba moom yi ñoom ñoo génn ci sàppe si daal di taxaw sàkk ku léewtoo ñoom bi ñu sàkkoo ku léewtoo ñetti wax waxambaane yu bokk ci lan yi génn te mooy Awf ak mu awas ak Abdullahi ibnu Rawaha bi ñett ñu génnee ñu ne leen yéene ñan ñu ne ñun de ab kuréel lañu bu bokk ci lan yi ñu ne leen yéen ay nawle yu baax ngeen waaye nag aajo woowunu leen ñun suñ doomi bàyyi dëkk Màkka lañ sax suñu mbokk yooyu dëkk Màkka lañ soxla ñu génn am ko woote ne Mouhamed génneel nu suñuy noonu génneel nu suñuy nawle ci sa waa kër yonent bi daal di ne Ubayda ibn Haaris jógal Hamza ibn Abdul Muttalib jógal Ali ibn Abi Talib jógal daal di ne ñett ñu jóg leen ñoom ñett ñu jóg ba jógee ba taxaw look ñoom ñooñu leen yeneen ñan ñu tudd leen ni leen nu nañu ñun ñi la ñu ne waaw kay yéen suñuy nawle ngeen di tàdd léegi Ubayda moo léwtoo ak ka ñuy wax Utba ibn Rabi'a te Ubayda moom moo leen magoon ñoom léwtoo ak kañuy wax Shayba Ali ibn Abi Talib léwtoo ak kañuy wax al Walid waaye Hamza ak Ali moom biñ ñaar ñoom ñu léwtool dañ leen rey na mu gën a gaaw Ubayda moo kam doon léwtool kenn ku ne dafa dóor sa morom jaasi kenn ku ne blessé sa morom bi kenn ku ne blessé sa morom léegi Ali ibn Abi Talib ak Hamza daal di wadd dal ci kaw xutba rey ko daal di jël Ubayda seen ànd boobu daal koy gàddu yóbbu waaye bu ko yóbboo fekk na tànk ba dagg na ba gannaaw bu xare Badar jeexee ñeent fan lañ ci teg eh, mu faatu bi ñu ñibbi Madina ci yoon wi la faatoo moom eh, da moom. mu mel ni kon njëlbeenu leetoo gi moom neexut ci yéefar ndax ñett ñu bokk ci seeni i tànneef daal dina ñuy dee loolu nag indi leen mer ak naqar nag ñu daal di songu jullit yi ak doole nag daal di agsi ak doole waaye jullit yi ñoom ginnaaw bu léewtoo bee amee li leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ni leen bu ñu leen song bu leen song te waxuma leen ko bu ñu leen songee it na ngeen leen na ngeen leen défendre ci ay fett léegi ñu taxaw taxawaay di défendre seen bopp waaye dëgg-dëgg xeex sax defuñ ko léegi di défendre seen bopp di wax ahab ahab bi mu tàngee ba tàng la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joxe ay ndigal daal ni takk leen nag daal ni takk leen daal leen di soññ ci xeex bi di leen giñ naa ci yàlla mi sama bakkan nekk ci loxoom ni tey jii ku xeex ak ñoom bañ rey ko mu ànd ko muñ ak di sàkku yoon te wane wut gannaaw benn yoon rek yàlla dina ko tabalal ku ñu wax Humayr ibnu Hammam mi ngi yoroon ay tàndarma yu ay tàndarma yu doon lekk waaye dañuy est-ce que est-ce que duñ digga wax ñu jonte chanson wax dañuy est-ce que est-ce que ndax sama diggante ma rek daal di sànni doomi tàndarma yi daal di jël deesam dem di xeex ba ñu rey ko li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joxe ndigalul song pour fayu cong mi yëfit doon song dafa fekk ñee song nañu ba tàmbalee découragé ñi ñoom jël njël mu yees njël mu yees moom mu ñu jël dafa mel ni plan bu xarañ la ci ni ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam doxale ndax ñii dañu doon ba ñee sonn bi ñu sonnee mu joxe ndigal bi mu joxee ndigal ñokkate ko guñ ñekkandiku ak yees gi ñu yees yees tax na ñëlee seeni dogu li daal di manqué mu andi leen ak tóoy noonu lañ songi cong mu tar di xotti sàpp di rey yonente bi sal li leen gën a doole ca war mooy yonente bi sallam wàcc dugg ci biir sol bubbum koŋ di wax ni say sama jam wayu wàllu na dëgg ndax li tàngoo bi mu tàngee ba tàng dafa dugg ci biir xeexam moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ali ibn abi talib mi ngi wax ni gis naa yonente bi ci jamono bis badar day moonu gën a jege noonu yi ñun ñëpp it moonu gën a tar ab xeex bii fi tàngee ba tàng yonente bi tibb tibb ay doj yu ndaw jàkkaar waa Quraysh dal ni saahatil wujuh dal leen koy sànni dal digal sahaba yi ni len dal len ci seen kaw ni dal di jóg xex bu metti malaika ñu wàcc gañe len ku ñu wax Saad wàcc dimbale leen ku ñu wax sa riwaay ibn sa'd jël na ci Akrama mu wax ni da nañu gis sax bop bu wad te duñ xam lu ko lu ko daaneel danañ gis ni ku jek jek ab loxom dag te duñ xam lu ko dagg foofu fii malaayika yi wàccee dimbale jullit yi ak doole nak fa la Iblis mom dal di arrière te booba mi ngi yoroon jëmmi Suraaqa ibnu Malik ibnu Jaasam al mudliji yi comme ni ma ko waxee ci njëlbeen ga bi mu gisee li malaayka yooyu def ci mu dal di wëlbatiku bëgg a daw ku ñuy wax Xaaris ibnu Hisaam téye ko jàppee ko Suraaqa ni ko waaw ana mu daal di koy dóor ab direct ci bi mu jaaxal mu daal di génn daw ñu leen man gis naa du ngeen gis mooy ara ma la tarawna inni axaafu llaaha in axaafu llaaha wallaahu shadiidul iqaab daal di daw dem tàbbi ci géej gi légui nak fofu yi la xuree suñu tàmbalee yëg ak manqué ci seen bop nag ñen ñi tambalé ya kan di daw ñen ñi tambalé di arrière jullit yi di len top di japp ñen ñi di ray ñen ñi ba ñu len gagné nganaay lu leer lo xamné tane ken taxawu fa. abou jahid nak ci bir lolu ñi ngi doon sañé di wax ni na ngeen gor lii suraaxa daw dem bu mu leen bu mu leen bu mu leen bu mu ragal lo ndax suraha dafa amoon rendiw ak Muhammad kep giñ naa ci laata ak Uzza ni duñ dellu mukk te duñ leen a ci ay buum yóbbu leen waaye loolu duñ ko waxee it bu gàtt la ñaari waxambaane yi bokk ci lansaar yi ku ñuy wax Muhaas ibnu Umayr ibnu Jamuh ak Muawas ibnu Afra jëkkante Abu Jahlin dóor ko ay jaasi ba rey ko biñ ko rayee daw jëkkante dem ci Yonent bi ne ko rey nañ Abu Jahlin bi ni leen kan ci yéen ko rey ñoom ñaar ñëpp ku ne ni maa ko rey yonent bi ndax ëmb ngeen seen i jaas yi ñu ne ko déedéet mu xool jaas yi gis ñaar yëpp tax déedéet leen yéen ñaar ñëpp ko loolu mooy ni ñu reyee Abu Jahl ibnu Hisam riwaayat ibnu Ishaq wax na ni Muhaas moom yi bi mu Abu Jahl ba dagg tànk bi fekk na Akrama ibnu Abi Jahl ñu ngi toppoon ci ginnaaw Abu Jahl dafa daal di dóor Muhaas moomu ab ab moom itam ba dagg ab loxoom léegi kañ wax Muhawas ñew dolli abu Jahni bëggoon ko jàkkale ba japp ni dee mu bayiko ko ba mu fa bàyyee nak mu des tuuti ci ab dund wax nañ ni de xare bi jexé la yonenté bi ni kan moo may xool abu Jahni ba xam nu def nee mbolo mbooloo tasaaroo ci bir euh, xur wi di seet abu Jahni, ba ibnu mas'ud moko fekk mu tedd te baw mi ngi ci mujub dundam mu waxante moom ay kaddu dal di dag bob ba andi ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam bi ni yonente bi bop abu Jahni bi nii yonente bi Allahul allahu la ilaha illa huwa waxu يعني الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده سنتنا يا الله مي خامي دغل لنا ابدالم دم لنا ابدامم داك كورل بي تمام كيب مولن داك داك نكو نين دم لو نكو دا اندك موم بام وون كو ابدالم ني كي داي موي فرعون ام بيرلي موي فرعون ام سما خير بي نوني كون لا خرب بدر جاخه ci ngañaay lu wóor lu julli ci gañu yéefar yi eh, ak ci ndimbalul yàlla xare eh, bo xare bata boobu nag ñi ci faatu ci ay jullit fukki nit ak ñeent lay toll ci mu am na ci juróom benn ñu bokk ci muhaajiroon yi am ci juróom ñett ñu bokk ci lan lansaar yi ñi nga xam ne ñooy yéefari yi rek ñoom yu mag a mag a mag fekk na leen ci ndax rey nañ ci ñoom juróom-ñaar fukk jàpp ci ñoom juróom-ñaar fukk te ñooñu ñëpp ci kilifa yi lañ bokk nga xare bi jeexee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daal di ñëw bëttim leen ni leen ndaw ndaw mbokk yi bon ci seenub yonent yéen de weddi ngeen ma nit ñi dëggal ngeen seetaan ma nit ñi jàppale ma ngeen génnee ma nit ñi xam ma daan leen jël leen diri leen leen yóbbu ca bën yële nga ay teen yoo xamante ni teen yàqu la mu joxe ndigal ci ñu diri leen yóbbu leen mu des fa nag te woowee moom yonent bi des na fa nag ñetti fan ñetti guddi euh, bi mu demee ba ca bisu ñetteel ba la digle ni kon nañ ma takkal sama naaga ñu takkal ko roxlaam dal di ko koy tegal mu daal di war saxaaba yi topp ci gannaawam mu ñëw ba tiim leen ca bënn yañ nekk daal di di woo ci seeni tur abu jahlin ibnu hisam utba ibnu rabia yow Sayba ibn Rabi'a yow diw doomi ndax li leen yàlla doyloon gis ngeen ko nun doyloon yàlla doyloon gis nañ ko noonu la waxee ñoom inna wajadna ma waadana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma waada rabbukum haqqan bi leen waxee loolu Omar ni ko ah waaw yonente bi ñi nga xam ne dee nañ bu medd bu yàgg ngay wax ak ñoom yonente bi ni ko gënu leen leen dégg li ma leen di wax waaye dañoo mënta tontu lii ma leen wax gënu leen leen ko dégg waaye dañoo mën la tontu ci ngañaay loolu yi ci la alquran wàccee aayam ni walaxad nasarakum allahu bi badrin wa antum azilla aaya boobu ci ko yàlla wax noonu nag la xibaar bi àgge màkka ndax yéefar yi bi ñu dem demuñu ci ak nos dañoo tasaaroo ci biir xur dal di dugg màkka xamuñu noonu la ñuy tàbbi màkka ngir kers ibnu isxaqa nee na ka jëkk dugg màkka indil leen ba moomu mooy ku ñuy wax al Haysamaan ibn Abdillah al Xusaan dafa agsi ñu ne ko lu nekk ci sa ginnaaw mun leen rey nañ Xutba rey nañ Sayba rey nañ Amru ibn Hisaam rey nañ Umayya ibn Xalaf daal di tudd mboolem kilifa Quraysh ñu ne leen ñëpp rey nañ yéen tamit sans moom yabal Abdullah ibn Rawaha ak Zayd ibn Haarisa ñu dem Madina ngir bégali leen ci ngañaay bi ko yàlla defal te fekk booba yahudi ak naafeq yëpp siiwal nañ ci biir Madina ñu rey nañ Muhammad bañ na ñuy jàpp ñenn ñi am ci tànge bi ñaari ndaw yooyu accès nag jullit yëpp wër leen ngir bëgg a déglu xibaar bi ci ñoom ñu leeral leen nga ñaay li leen yàlla defal ñun ñëpp ñu daal di dégg dégg ci akutaan daj kapp madina eh, coow li daj kapp ci wàllu madina yi ñuy takk ñuy wax allahu akbar ñu naan laa ilaha illallah kilifa yi jullit yi daal di jóg jaar ci yoonu Badar ngir daje jeeg yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ngir dëkkoon ndokkeel ci nga ñaay lu ko yàlla defal Usaama nee na xibaar bi ñun bi ñu agsi ci ñun dafa tasanteeg fekk ñu denc doomu yonente bi bi ñuy wax Ruqayya euh, Ruqayya doomu yonente bi bi ah, Seydina Usmaan yoroon dafa fekkoon mu wéré di yonente bi bàyyi woon fa Usaama ak Usmaan ni leen yéen wattu leen ko euh, te di ko toppatoo euh, wax na ne bi ñu ko dencee di noppaloo bañ denc ko ba noppi la xibaar boobu agsi ci ñun kon noonu la nga ñaay di demee ci waa Makka noonu la demee ci waa Madina Euh, léegi nag yonente di ginnaaw bu xare bi jeexee mu am fa ñetti fan euh, jëkk muy jóge ca béréb boobee ñu doon xaree nag ay joyoo am na ci jullit yi ci màngit mañ màng ndax ni Ubaada ibnu Saamil waxe mooy bi ñu gën di ànd ak yonente bi sallallahu di fekk ji Badar euh, dajeeg yéefar yi yàlla dàq leen ci kàttanam da cee am kuréel boo xam ne dañoo topp ci ñoom di leen dàq am ci kuréel boo xam ne ñoom dañ doon for lañ bàyyi màngit dañu di ko dajale di ko denc am ci kuréel boo xam ne dañoo dem di aar yonente bi sallallahu alayhi di ko wattu ngir bañ benn noon di ko di agsi ci moom léegi bi ñu ba guddi nag ba mbooloo mépp daje ñi nga xam ne ñoo doon dajale màng mi ni daal ñun kat ñu koy dajale suñu bopp lañ ko dajale waaye seen ñoo ko moom ñi nga xam ne ñoo toppoon ñu yëfaree di leen dàq ñu leen dee nun ñëpp a ci yem ndax ñun itam bu doon nun lañ ko am ndax ñoo leen dàq bañ wàcc ko fi ña doon garde yoon tamit nu itam ñoo leen ci yem képp ndax dañ doon garde yoon ngir bañ mu diggante werante werante yi nag la yàlla wàcce aaya alquran lijjanti seen diggante te mooy yasalunaka anil anfaal qul lanfaalu lillahi wa la daan leen daan yonente bi ñu ngi di laaj mbirum màngi di waaye màng mi yàlla ak yonente bi ñoo ko moom ñooy seet nañ koy séddale bi ñu ko delee ci loxo yàlla ak yonente bi nag ko bi séddale ko juróomi xaaj te benn bi ñeenti xaaj yi mu séddale ko mboolem ñi fekkoon arme bi ñu yemoo ci eh, ña doon xeex ak ña doon garde yonente bi ak ñi ko doon dajale ñoo ci yem képp kon loolu mooy àtte bi alquran àtte ci ginnaaw ñetti fan yi nag yonent bi dellu jëm Madina ànd ak giri soñe yi li nga xamante ni jàpp na leen ci ger bi bi mu demee ba ci yoon wi la digle ñu rey ñaari nit ci ñoom kenn ki mooy ka ñuy wax an nadr ibnul xaaris eh, te moo yoroon drapeau bi yéefar yi ci bisu badar te ñi dàqoon na tooñ ci xore suñ ci la bokk ci ñi ëppoon pexe yu ñuy fexeel islam ci la bokk ci ñi dàqoon a lor yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci la bokk moom Nadr ibn Xaaris moom kon kooku moom yoon li mu def mooy ray ko ndax yàq gi dafa bëri ka ca des mooy Uqba ibn Abi Muayyid te mooy kii moom itam ku taroon ay lor la ci yonente bi mooy ki nga xam ni moo fekkoon yonente bi muy julli ci wetu Kaaba ga mu dem jël am sëb bu satti ko mooy ki nga xam ne moo fekkoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu taxaw mu ñëw xerandi ko ba nar ko rey nga xam ne Aboubacar moo doxoon seen diggante kooku euh, ci ba ci guerre yi léegi yi ñuy def nga xam ne buñu jàpp bi suñu yi xam ne ñu ci gënoon a tar ay yàq-yàq dañ leen di rey kon dafa mel ne luwaa boobu fekkoon nañ yonent bi sallallahu alayhi wasallam jëfandikoo ko ndax ñaar ñooñu moom dafa dig leen nañ leen rey muy Nadr ibn al-Haris ak Uqba ibnu Abi Muhayyid bi yonent bi ak ca fa ñuy wax arrawxaa nag fi la kilifa yi la kilifa yi jullit yooyu daje moom di ko teeru si di ko mu dugg Madina nag waaye ba muy dugg si xibaar bi siiw waa Madina gépp am ci moom euh, am ci moom ak ragal mboolem ñu nekk ci peggu Madina dégg li xewit am nañ ci moom ak ragal ba foofee mbooloo mu bare bari dañu daal di jébbalu ba foofu yi sax fala ka ñuy wax euh, Abdullah ibn Ubay ibn Salul mi nga xam ne moo doon njiitu naafiq yi euh, fala jébbaloo feeñal islam ci kaw mu ngir tiitaange jooju nga xamante ni kon e, mbirum prisonniers yi ni ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doxe bi ba ak Madina dafa dajale saxaaba yi waxtaan ak ñoom ci prisonniers yi lu ci seen gis-gis Abu Bakar ne ko ñi di suñuy doomu baay rek lañ suñuy mbokk lañu yëg man de ma gis mooy nga ñu jot nga jox nga jël ci ñoom ak jot bu defee loolu ñu jël ci ñoom dana doon doole ci ci nun ci kaw yéefar yi te it ñoom yàlla mën na leen a gindi nag ñu far mujj dinu jàppale gis-gis boobu moom la si Abubakar am yonente bi gëstu Omar ne ko loo gis yow Ibnul Xattaab Omar ko man de gisuma li Abubakar gis man de li gis mooy nga jox ma diw ma rey ko te diw mi mu wax ku ko jegele mbokk ne ko diw mi ma gën a jege ci mbokk jox ma ko ma rey ko Ali ibn Abi Talib mii nga jox ko xaqil mi mu bokkal bàyyi mu rey ko Hamza nga jox ko diw mii mu bokkal mu rey ku ne ci noonu ki ko gën a jege ci mbokk na nga ko jox mu rey ko ba noonu yàlla yi xam ni benn cofeel amul ci noonu gu ñu sopp ay yëfar ni ko ñii ñooy njiite xoree si ñi boo leen ko bàyyee du bon lañ ci nekk. waaye yonente bi mel ni dafa jàng jëm ci xalaat Abubakar euh, dal di jël ak jot ci yëfar yi daal daal nañ leen jot daal yaakaar naa moo tax waaye ci ëllëg Omar ñëw fekk Abubakar ak yonente bi ñu toog di jooy ñoom ñaar ñëpp Omar ni yonente bi ana lu ngeen di jooy yaak sab àndandoo man de bëgg naa nga wax ma ko ndax su ma mënee jooy jooy su ko mënut it jooy jooylu ngir li ngeen di jooy yonente bi ni ko jot gii ñu doon jël démb de ñu ma ko biñ ko jëlee dañu maa wan seen mbugal mu jeg mu gën maa jege ci garab gi ngay seen mu doon garab gu jege woon yonente bi sallallahu alayhi wasallam mooy ko mbugal mi mi yàlla doon indi mu jëm si ci noonu moo gën a jege garab bi la yàlla wàcce aaya ni maa kaana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard تريدنا عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم كل آية بابو تي جد جوجو يوم نتبي نجل أجد تفير سني تلا كوي الله واتي من ندفل ديت كن نون لمبروم سني دخة قريشين نيو جد نينفع أم تي ألال نتا أمول ألال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 ndax du taxawati fenn di dal ci sa kaw di la dara waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax nit itam nit daf ko doon moytu moo tax xalaatu Omar bu jëfandikoo ko ak di ragal rek mbugalum ëllëg ci kanamu yàlla suuf lan faal lu ci ëpp ci wàllug xeex bi ci la wàcc yàlla mi ngi wax ci biir sar woowu nii waskuru is antum qalilum mustadafuna fi l ardi